xam nga affaire u Nafi Ngom Keïta ak Sonko affaire bu doy war la parce que boo déparé ci li nga xam ne président ci boppam moom la wax mu ne man damay jiital Sénégal bala may jiital sama parti loolu nag soo ko waxee lu mu war a tekki mooy képp koo xam ne day liggéeyal Sénégal da nga ko war a dooleel parce que soo ko dooleelee mel na ni yaa ngi liggéeyal Sénégal muy mu ko sa wax waaye soo leen niwelee doole day mel ni yow nekk di liggéeyaloo Sénégal leneen moo la tax a jóg te boo xoolee Sonko Sonko lan la wax. Sonko génn na wax xamal nit ñi ne assemblée nationale ndekete fayul impôt yi li mu waroon fay loolu su fekkoon du dëgg ñu weddi ko ne li mu wax amul ñu ca teg mën nañ ko d' accord waaye loolu kenn weddi ko li ko ko waral mooy président assemblée nationale moom ci boppam génn na def chèque pour ne dafay fay li nga retard bi nga xam am na ko su Sonko génn woon wax loolu mais du ko def amat na titel su ko deful xaalis Sénégal mooy naax saay ci noonu kon kay mën nañu wax Sénégal Sonko foofu liggéeyal Sénégal. donc ku mel noonu dafa laaj ñu féliciter ko encourager ko parce que li muy def Sénégal la ko defal waaye contraire bi la ñu gis bu ndaxatal ko bëgg suspendre ko xëy na sax dañ ko bëgg a dàq loolu nag dañ jàpp tegul ci yoon te àndul ak déclaration président moom lay def président war a dellu ginnaaw ci li muy def attention peuple faluñu ko pour muy defal inter particulier dañ ko fal pour mu defal international pour mu défendre njëriñu Sénégal te képp kuy liggéey ci njëriñu Sénégal kon président da ko def allié et non pas mu li nga xam ne aussi boo ko xoolee aussi loolu mu jëm ci Nafi Ngom Keïta même chose lay doon Nafi Ngom Keïta nga xam ne yow moo rewoon OFNAC Sénégal yi yëpp yëpp yëpp seedeel nañ ko liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la def jël seen temps def enquête boo xam ne mucc na ayib bañ ca pare lépp loo xam ne war na dem justice ñu jébbal ko justice loolu mooy wane ne moom ndekete li Sénégal lay liggéeyal moo tax xaarul sax président recevoir ko pour pour pour pour mu présenter ko rapport bi dafa que ne Sénégal lay waxal Sénégal lay liggéeyal Sénégal war a ku mel noonu aussi ak liggéey bu am solo moom mu def félicitation la yooyu askan wi en tout cas loolu la ñu gis ci moom su fekkoon te ni tey askan wi mooy félicité askan wi ne ko fii moo yore baatu askan li ko waral mooy mu félicité ko ñëpp xam ko ci lu askan wi. defu ko waaye génne ko fa mu nekkoon ci loo xam ne sax amat na mandaam jeexul woon xam nga loolu vraiment yéeme na lu muy tekki rek mooy ne ndekete ñu jiite li ñuy wax ak lu ñu yef bokkul li ñuy wax dañuy wax ne Sénégal la ñuy liggéeyal waaye la ñuy jëf. seen i yi ak seen bopp la ñuy liggéeyal mooy loolu muy liwét mooy fi la ñu feeñ seen jëf loolu nag ñun dañ koy ñaawlu di leen woo nag pour ñu dellu si ci yoon bi parce que yoon boobu mu jaar yoon bu baax te du leen jëmale fu baax waaw xam nga loolu loolu loolu affaire problème grave la ñun yàgg nañ ko wax suñuy déclaration problème bi fi mu nekk mooy ne euh, su fekkente ni pouvoir exécutif bi dafay yéeg ci kaw pouvoir judiciaire mooy indi lii parce que dañuy dugg ci loo xamante ni waruñu foon dugg Nafi Ngom Keïta bu déposé rapport am li waroon président mooy ñu bàyyi rek justice gars yi doxal seen liggéey ñu ñu war a convoqué ñu convoqué leen waaye impression bi mu am mooy ne dañ ko dàq justement pour won ko ne faale wuñ li nga def won ko ne ñi nga bëgg ñu yóbbu leen justice justice du leen du leen topp c'est une façon de dire à la justice que sama gars yi bu leen leen laal te dañ koy gis boo nekkee président lu la neex def gis nañ ko ci euh, CREI bi nu demee la liste des vingt cinq ñan lañ ci sonal. à part ki nga xamante ni maanaam question règlement de compte la muy Karim Wade ñu des ñëpp bàyyi dem seen yoon loolu nag problème bu rëy la Sénégal tant que fexewuñ ba nga xamante ni justice day am autonomie liggéey ni mu war a liggéey mbir mi du jëm kanam xoolal bu yàggul bi ñu fi waxee 74 milliards yi ku nekk dégg na ko procurer auto woo gars yi pour déglu leen lan moo gën a yàlla loolu Sénégal ci ci am réew muy doxee normal xaalis bu baree noonu un ex ministre génn ne un ex moo ko sàcc te am na ci ay firnde daani ki lan la ñuy kooku boo waxul ak moom pour fexe leeral loolu lan ngay war leer Sénégal loolu procureur jël jël décision pour entendre ay nit pour ñu démarrer poursuite mais ñu arrêté ko net ne ko du fi jëm ba ñu tek ko ci côté alors que au même moment ñu dawal CREI pour ne lañuy ay nit amul sens boo xoolee li ñuy def loolu yëpp daal lu ma ci résumé mooy ne soo ko seetee à chaque fois que intérêt national nekk en jeu intérêt parce que nekk en jeu moo am. non xam nga am na am na opposition bu taxaw mais opposition aussi warul nekk opposition boo xamante ni day wax lu ko ne di la ko neex parce que li ngay reposé nguur gi yow sax warul ko def donc opposition bi ñu ngi def li ñu war def di dénoncer li ñu war def dénoncer d'ailleurs Ousmane Sonko bi ngay wax opposition la bokk Idrissa Seck opposition la bokk te ñu yëpp gis ngeen gars yi taxaw ñu taxawoon seen kanam pour jëm la sonal ndax wax yu ñuy wax donc effectivement opposition mu ngi liggéey pouvoir moo deful li mu war def te li mu ci gën am solo tey mooy bàyyi justice mu def liggéeyam. organe de contrôle boo ko tegee ba pare organes yooyu def seen liggéey mais su fekkente ni décision euh, li nga xam ne mooy génn seen liggéey après coono bi ñu def yëpp doo ko yóbbu bàyyi juste def ci li mu war rek mais amul la def noonu ban njëriñ am amul njëriñ yàq la et donc aujourd'hui président moo am intérêt à ce que atmosphère bi nekkul lu tranquille lépp teey pour mën a liggéey parce que opposition li ñu war mooy critique la ñu wax ak yoon wax parce que yoruñu pouvoir décision def ki nga xam ne mooy def moo amoon intérêt dëkk bi dal mu mën a liggéey waree li mu liggéey parce que moom xaaruñu ko ci ay wax bilaam du ay wax bilaam jëf la kon moo am intérêt ci dëkk bi dal tax mu mën a jëf wane li mu def su defee le contraire nag di susciter ay débat ay coow dul jeex c' est comme si ñoom mu mënuñu jëf en réalité day mel ni gars yi li ñu wax ni ay nilaar ngeen mënu leen dëgg la te loolu war nañ ko moytu war nañ ko moytu jërë ngeen jëf merci beaucoup.